laan bikum yéen politiciens yi moo xam ñi jiite réew mi wala ku jégi faa bëgg ngeen dox tànki jàmm ci réew mi bëggante ba pare di jéggalante ndax li ni mel mooy njàngaleem ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul réew mi yéene kaay ne kàddu yi nag mooy li gën a fës ca cérémonie officielle màggal ak ku tedd ki Sëriñ Tuubaa ni ki démb yow fa ngay xool presque yéene yépp fa ñoo dikkaat ak ñun ca cérémonie officielle màggal Tuubaa gi démb Sëriñ Bass Abdou Abdou Khader Mbacke yor kàddu yoonu murit fa jottali kàddu Serigne Mountakha Bassirou Mbacke jëmale ko ci politiciens yi regard yéene kaay na xalifa général des mourides kay fa xamal li ñuy wax fatwa waar woy politique yi ngir ñuy jéggalante baxale lu baax la waaye nit ñu ponkal ni maanaam góor dëgg nit ñu baax ni ñooy jéggale si du quotidien na ko facaa yokk moom xalifa ba ginnaaw bu mu leen ñaaxee ci ñuy dox tànki jàmm di baxale di jéggale waaye tamit fa ñu war a moytu lépp loo xam ne fa yee fitna l'observateur ne xalifa ba fa leen a wax ne ut nguur jarul nga yàq sa morom le regard yéene kaay na ko waaye tamit wax na ñi nga xam ne fañoo yor nguur jiite réew ne fa war di jëllale ak a jéggale ñi nga xam ne ñoo bëgg a ut nguur it ñu ut ko ci utin wu rafet le soleil yéen a kaay na sëriñ Muntaxa kay fa xoote jàmm bés bi yéen a kaay na ko fa ngay wax ne fa jàngaleeti leçon la jox way politique yi waaye yemut fa tamit de xalifa bi woo na ndaw ñi ñu roy ci njàngalem ku tedd ki sëriñ Touba jëwriñ ji di Antoine Diome ca cérémonie officielle ba fa faa wax li nga xam ne njiit réew Macky Sall jot na koo liggéey def ko ca Touba ba pare dalal xel ya bugaan gay dani ci turbine yéen a kaay mel ni ku naan ka fii moom xel yi daraa fi dalu Touba haay màggal ga coono bu bëri la askan wa nekkee ci mbënd mi ci ñàkkum ndox te loolu yépp nag li ko waral mooy nguurug Sénégal li muy jox Touba dëkk bu sell ba xat bu yàlla sàkk ci fukki milliards ak ñeent yooyu fa tuuti ba jéggi dayoo looloo andi problème bi yoor yoor yéen kaay ne man kay faa xamut ñeen fukk juróomi milliards yi nga xam ne fa ñoo wax ne ñoom état bi dugal nañ ko Touba ngir assainissement ba waaye ñeen fukki milliards yooyu ak juróom fan la dugg laay laajte ah ndax màggal gi ku nekk gis na ne quartier ba ñuy wax ndaam askan wa xamuñu woon ndox muñ naan waxuma la ak muñ sangoo ñu ne déetewaay yoon yu mag yépp ca Touba fa fees ak ndox mbënd ma te fa ñoo seetlu ne Antoine Diome jëwriñ ji nekk waaye mbiru ndox ma lañ ko ca laaj fa koo teggi moytu la ko def de waxut ca dara donte sëñ Bass Abdou Khadre moom wax na ca direct news ne faa di defal bilan màggal ren gi yaaw fa ngay xool lu ëpp juróom-ñeent fukki at ak juróom benn ginnaaw bu ku tedd ki woote màggal gi ba léegi te ba léegi fa ñoo seetlu ne ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul fa gën a nekk ci xolu jaam ñi lu jege juróom benn million doomu aadama ñoo demoon ren ca màggal ga fukki doomu aadama a dëggal ko na ko fukki ak ñett ci route nationale leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja moo ne njiitaram Macky Sall ndaje mu mag ma réewu Afrique da xamal fa wan yoon wi nga xam ne fañ faa war a xaw ngir wàllu financement ak suqali wàllu énergie ci déndu Afrique info yéen a kaay ñi ko xamal le quotidien la ko faala ci yokkal njiitaram Macky Sall ca sommet Afrique boobu fa faa wane ñàkk àndam ci bor bi nga xam ne ñi ngi koy teg ci ndodd réew yi nga xam ne fa ñoo ñàkk nekk fii Afrique GP yéen a kaay na ko faalañ ci yokkal njiitaram Macky Sall na fa sax TER bi ak BRT bi ne réewu Afrique cee war a roy lépp jëm ci wàllu sommet Afrique bi ci wàllu climat bi baax la li baaxut nag ca mooy seen compte Facebook ba fañ ko piraté de ay photo góor ak jigéen yu jaxasoo fi mu toll moom lañ fay wane léeg si ko yéen a kaay ne li lu garaaw la ne loolu lu garaaw la ba tax gaa yi pelante nañ <laughs> lu leer ba yegg ca naan ñi mooy ne ku jóge opposition bi fa fas yéen a wàccaat ci mbedd mi amal ñaxtu wala fa jër yéen a kaay ñu ko xamal indépendant yéen a kaay na ko na wax ji yegg te leer waa F24 yi ngay wax ku jegoogu ajjuma bii di ñëw fa ñu wàcc ci mbedd mi ñaxtu ngir ñu bàyyi ñi ñu tëj kaso te politique tax fexeyit ba ñu bàyyi ñëpp bokk ci wote yi libération moom ñoo xamal na Khalil Camara bu Sénégal gaa yi teg nañ ko garde à fañ koo jàpp ndax ab texte bu ñu publier ca Sénégal di wax ci wàllu déclaration Ousmane Sonko waaye xalil nee na leen texte boobu man si ñëw ma ko de <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi moo mooy ne samedi bii di ñëw ci la njiitaram Macky Sall di wax ki mu tànn ngir mu nekk candidat benn bokk yaakaar waaye tribune yéen kaay fa ñoo xamal ne laata muy wax ki mu tànn sax ñu bëri fi mu toll nii ca waa APR ya ànduñ ci ki njiitaram Macky ba tax yéen kaay bi ne est-ce que Macky sax njiit réew mi dana wéy di continuer jiite APR ah su tànnee na ko ki nga tànn d'accorduñ bañ a jëfee ndigalam est-ce que boobaa du bàyyi APR seetaan leen bu nar a garaaw la ci ñoom bii di ñëw ba ci sax allié yi parti yi koy jàppale am na ñoo xam ne ànduñ ci kim tànn l'observateur na ko xam naa ne daal Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Mame Boye Diawa Aly Ngouille Ndiaye fi mu toll ñoom ñi ngi def campagne boo xam ne fa désordre ngir teg pression Macky tànn leen enquête yéen foog nañ Amadou Ba dana wéy di des nekk njiitu jëwriñ yi réew mi yéen a kaay ne 2024 mbiru Karim Wade yéen jaaxalut leen PDS fi mu ni yëngatu na te Karim ba kenn gisul ko ci ku bëgg a jiite réew mi ñeneen ñu bëgg a jiite réew mi muy parti Pastef ba woon source a fa ñoo xamal ne ña ngay waxtaan nag ci seen biir ngir mën a am beneen candidat su fekkee Ousmane Sonko du mën a bokk ñi bokk ànd di ay ndaw yu bëri dugg ci gaal ngir dem Barça mbaa Barsaq ci géej gi le quotidien yéen a kaay ne na lu ndaw jàpp nañ leen ci ñaari fan vox populi dëggal ko na ko ñaar téeméer ak ñeen fukk ak ñaar ci teg nañ leen loxo ci waaxi Louga duggoon ngir dem Espagne yéene kay bi ne Espagne boobu sax ñetti junney doomu aadama dugg nañ fa ci benn weer fukki junneeg juróom benn ndaw dugg nañ fa janvier ak léegi l'observateur na leen xam na ñeneen ñuy dem nag bitim réew Amérique jaaree ko fa ñuy wax Nicaragua waaye foofu tamit fi mu toll nii yoon wa neexatut de ah. yaaw seetal moodu nee na man faa jaar Nicaragua waaye ci yoon yi fañ ma faa fetal ñetti yoon ma rëcc ma sama benn moom fañ koo gor jaasi frontière Mexique ak Amérique mooy digg bi gën a garaaw bala ngaa yegg Amérique ay bandi fañ leen yoon yi coono bu métti ngay daj tàggat yaram Modou Lo Boy Niang 2 premier janvier 2024 bii di ñëw ci la ñuy sëgg bëre sunu lamb yéen a kaay ñu ko xamal a kaay fa ñoo xamal ne waajal jogante xaritoom ak Algérie gaynde ñëpp ñëw nañ nag waaye fa ñoo seetlu na ñaareel Algérie moom fu mu fekk Aliou Cissé Sénégal rek mbuqi ko ñu war a mbuqi dëgg nag dóor leen mooy ay borom kër yoo xam ne fa ñoo jël seen photo ak vidéo jabar yoo xam ne fañ caa def yaramu neen ak yu garaaw di ko partagé si ak seen i dëkkandoo yëf yaa nga amee ca diwaanu Mbuur l'observateur moo ñu ko xamal ana jëkkër lu muy partagé photo jabaram bu mu def presque yaramu neen loolu foog nga ne jàmm la ki jàmm dalut kay ndeysaan mooy benn chauffeur boo xam ne ci màggal gi fa doon dawal ba sonn yéeg ci kaw port bagage bi tëdd di noppalu jox apprenti bi muy dawal waaye ndeysaan source a fa ñoo xamal ne apprenti bi daal bi muy dawal ba mu yàgg chauffeur ba ca kaw porte bagage ba fa la xattar bi ko daanu ñàkk bakkanam allah